بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قدر لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن barakallahu fiik suñu boroom mu ni bismillahi rahmaani rahim wal fajr mi ngi waat ci fajar wa layaalin ashr di waat ci fukki guddi ya wa shaf'i di waat ci lépp loo xam ne ñaar la muy peer wal watr di waat ci lépp loo xam ne daa tóol muy impair wa leyli isa yasr mi ngi waat ci guddi ga jamono ba muy jeex di dem hal fi zalika qasamun li zi xijr ma ndax lii nekk na ci ab waat ñeel borom xel mi ngi noonu xijr mooy barrage ci xel mooy dox sa digganteeg lu bon alam tara kayfa faala rabbuka bi aad ndax gisoo ni yàlla def ak waa aad irama zaati l imaad ñoo ñi nga xam ne ñoo dëkk woon iram ba nga xam ne moo amoon piye yu màgg ya allati lam yuxlaq misluha fil bilaad dëkk boobu nga xam ne museesu la bind lu mel noonu ci dëkk yi mboole seen doonte ni iram am na ñu koy delloo ne seen maam jala ca imaat boobu mooy seen kattan ga seen jëmm ya kenn musul bind lu mel ne ñoom wa samuud moo ne waa samuud yi di jaaroon nañ fi allazina jaabu ay qata'u saxra bilwaad nga xam ne ñoo xotti woon doj ya ca la nga xam ne mooy xur ya xur ya nekkoon ca biir montagne ya wa firawna zil awtaad ak firawna ma nga xam ne it mooy boroom daaj ya am ñu ko delloo ci pyramide yam tabaxoon am ñu ko delloo ca lam doon mbugale allazina taxaw fil bilaad ñii de ñoo ñi jéggi woon dayoo ci dëkk yi dawoon jéggi dayoo fa aksaru fiha alfasad ñu bari fa lool ak yàq fa sabba alayhim rabbuka sawta azab mu sotti ci seen kaw sa boroom lii di yaruk mbugal inna rabbaka la bil mirsad sa boroom yàlla day ma nga ci ëkkuwaay ba ay mi ngi ëkku ay jaamam tiim leen dara rëcc ko ci ñoom fa amma al insaan waaye cay doomu aadama ida mabtalaahu rabbuhu bu dee ne boroomam yàlla da koo nattu fa akramahu mu daal di koy teral wa naamahu daal di koy xéewal fa yaqulu rabbi akraman mu ne ah man de yàlla teral na ma wa amma ida mabtalaahu waaye bu ko yàlla nattoo fa qadara alayhi ris risqa mu daal di gàttal ci moom li di wërsëgam fa yaqulu rabbi ahanan mu ne hey man kay yàlla dama toroxal mi ngi noonu moo ko suñ boroom mooy boroom jamono moo am droit giñ ci lu ko neex yow jaam amoo droit giñ lu dul ci sa boroom muhammad alayhi salaam li muy baax baax kenn du giñ ci moom kenn du giñ ci jibril kenn du giñ ci arsh boroom boobu muy giñ ci fajar di waxtu wu yéeme biy teqale guddi ak bëccëg suñ boroom yàlla sant ñu ci ñu jóg daldi ciy julli mu waat ci fukki guddi yi lu bari ci borom xam-xam yi nee nañ mooy fukki guddi yi jëkk ci weeru tabaski yonent bi alayhi salaam ne kenn defalul yàlla jëf bu mu gën a gërëm boo ko defal ca bis yu jëkk yooyee ca tabaski donte ne guddi dees na ko boyal ci bëccëg comme bëccëg niñ ko boyale ci guddi waaye ña ngi ca namm bëccëg ya bu dee ne nag fukki guddi yu gën moom mooy guddi yi yàlla dogal ñu koy dund te guddik tey gii ñu jëm mooy guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar bi nga xam ni lu ëpp ci borom xam-xam yi yaakaar nañ ne mooy laylatul qadr yàlla na yàlla dëppale ñoom moom suñ borom waat ci chef awal witr borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari bari ala kulli xaal mooy lépp loo xam ne dafa doon loo xam ne lu nekk ñaar la wala lépp loo xam ne dafa doon loo xam ne lu toll la mi ngi noonu doonte ne ne suñu boroom bindaa fanam yépp chef ala leen def wa min kullin xalaqna zawjayn lu mu mën a doon rek ñaar la yàlla kese mooy al witr moo tax yonent bi alei salam daana wax naan yàlla day witrul la yuhibbul witr kon dee leen witr yàlla daa bëgg lu tool ndax moom daa tool kon seeni julli guddi dee leen ko toolal ay dee leen ko def witr mi ngi noonu borom boobu it di waat waatoon na ci fajar sànq waatit ci guddi ba muy jeex te fa muy jeexee la fajar di xare loolu muy changement de temps boo xam ni bii mooy mandarga guddi bii mooy mandarga bëccëg suñu borom mu ne xoolal su ma bàyyi woon guddi ba yowmal qiyaama ku mën a indil ci yéen fajar su doon dama fee bàyyi bëccëg bi ba yowmal qiyaama ku mën a indi bëccëg guddi kenn borom boobu nag daal di ne lii day ndax ñeel na ci ak waaraate ñeel borom xel na am borom xel bi xam ne yàlla mooy borom temps mooy indi guddi mooy indi bëccëg ku mel nii day mooy dogal lu ko neex ci ay jaamam borom bi it delluwaat ci la nga xamee ne nii mooy ay jaamam jaamam yooyu mu amoon ci waa aad mu ne ndax gis ngeen ne yàlla def ak ñoom ah kay jàngoon nañ ko bi ñuy jàng suratul xaq ay yàlla tàggat na ci ñoom ngelaw boo xam ne nekk na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bëccëg maasale leen def leen na datti tàndarama mi daaneel ñooñu nga xam ne nii suñu borom nee na dañoo amoon kattan seen dëkk ba kenn mësul gis dëkk ba mel na moom donte na ñoom it seen jëmm yi kenn mësul gis jëmm yi mel na ñoom waaye bañ leen alagee waa Samuud it ñëw amoon xereñe bay dem ci montagne yi di ko yett da ci defar ay château ca seen jeexital ya ma nga ba tey ci Arabie Saoudite seen gox ba ña ngi ko tuddee Madainu Salih mi ngi noonu mooy fa ñu indi woon Salih borom boobu woon ñi firawn zil awtaat awtaat watat boobu arab dana ko wax ci ñaar masal sunu borom mu ne wa ja'alna al jibala awtaada mu ne comme na mu koy wax rek wal jibala awtaada montagne yaa ngi nii nekk ay piquet ca firawne pyramide yee mu tabax ca Égypte ñu boole ko ci merveille du monde soo ko dàndee ca xamoo da ngay jàpp ay montagne la ndax na mu kawee ak na mu rëyee doonte ne it la nga xam ne muy awtaat daan ko waxee niñ daan téye tant yi samp fi benn bant daaj ci suuf daaj ci suuf firawna bu daan mbugal ay gaayam bu leen di rey da leen daan def awtaat boobu gis ngeen bu dee ni jabar yi moom da leen a daaj ci kaw tàndarma yi mais am na ñoo xam ne day jël benn piir samp quatre piir ñu takk ci sa tànk takk ci say loxo noonu lañ lay bàyyee ci naaj bu tàng bi di la mbugal ba baa ngay dee ñu ngi noonu manchita ka nga xam ne nii moo nekkoon bindaandam ba mag ba noonu la ko reyee soxnaam ci boppam noonu la ko reyee soxnaam ci boppam noonu la ko reyee te moom nekk rey bu métti xam ngeen doomu aadama cor ko jaasi mu dee wala dóor ko xeer mu dee loolu du problème mais yenn torture yi ba baa ngay dee loolu moom lu jéggi dayoo la borom boobu ne ñii ñoo beewoon ci dëkk yi bari fi ak yàq fu yàlla mujj ak ñoom ñoom ñépp ñu ngi ci biir suuf loolu it mbokk mu lay wan ne suñu borom kenn du ko rëcc tey jii occidentaux yi na doon ñu ngi dem ci dëkk jullit yi naam di bombarder sous prétexte la ñuy soxla ci ay pétrole ay uranium suñ dëkk africain yi au Mali ou partout da ngay gis ne daañ créer ay guerre pour mën fa intervenir pour ëllëg ci si biir la fay nekk ci mbaax yépp ñu teg ba seen loxo ana ban dëkk moo ëpp li bi pétrole fexe nañ ba daaneel Xaddaafi daal di indi fa désordre bu ko defee lépp ñoo koy contrôler sans gêne waaye dara yàq lu ñu mën a yàq waatal ne génération bi dund tey ci kaw suuf nii cent ans ci gannaaw kenn nekku fi woon cent ans ci kanam kenn dootu fi nekk am déet yi nga noonu ñi am décision ci kaw suuf ñëpp tey États-Unis ba Orient loolu moo nekk ci biir fii cent ans kenn dootu fi nekk kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni bil mirsaat mi ngi nekk ci ëkkuwaay kenn du rëcc lu mu yàgg yàgg kenn du rëcc président général milliardaire expert kenn du rëcc bil mirsaat borom boobu nag mu ni nit ñi ñaar lañu am na ci doomu aadama yoo xam ne yàlla da leen di nattu teral leen ay may leen pouvoir ñu bokk ci famille yu kawe yàlla ubbi seeni xéewal lu ñu yuutu ci alal jot su ko defee nag ñu xeeb ñi ci des ne man day yàlla daf ma teral ñu jàpp ne bëgg gi leen yàlla bëgg moo tax lu ñu yuutu jot ko gis ngeen xam ne nit ñi xalaate noonu masalan da ngay dégg ñu naan ah mboolum sëñ diw day amul tànki gannaaw ca kanam rek ca kanam rek kon kay mbokk nañ dem nekk chrétien waaye occidentaux yi kay ca kanam ca kanam rek am déet nit ñi rawee buñ taxawoon un siècle sax duñu leen dam am déet kon mbokk mbaax ak njub kenn du ko xamee alal ju yokku wala mbooloo muy yokku mbaax ak njub ci tegtal lay nekk su ko defee ñoom dañuy jàpp ne teraange bi leen yàlla bëgg gi leen yàlla bëgg moo tax mu teral leen nii amma xamuñu ne loolu nattu la teraanga ji lu mu gën a bëri te jëfandikoo ko fa neex yàlla la say mbugal di gën a bëri yowmal qiyaama contraire bi beneen waaye ngi nii moom yàlla da koo natt daa di gàttal wërsëgam ñaan naa ñaana ñaan ba sonn munta am dara sonn su ko defee mu ne ah man ko yàlla dama toroxal jàpp ne xeeb gi ko yàlla xeeb bañ gi ko yàlla bañ moo tax munta am dara mbokk loolu jumte munta passé loolu yàlla moo nattu ay jaamam ñii mu jox leen ngir nattu leen ñii mu nattoo leen ñu ñàkk bu àdduna ñépp amoon musiba am gaa yi kon kuy nangoo dem liggéey oto mbalit ba àdduna ñëpp amoon kuy nangoo dem di yenu ay saaku ciment di ko yóbbu quinzième étage déedéet yàlla dafa nattu ñi ngi leen ñu mën a def kër kër pour liggéeyal ñeneen almuhim xamal ne bu la yàlla mayee dalaa nattu soo defee la nga war a def yàlla xañ la bul jàpp yàlla dalaa bañ yàlla jaamam yi mu gën a bëgg ba mu créé kaw asamaan ak suuf ba tey ñoo nekkoon ñi gënoon a ñàkk mboolem yonent bu yàlla mos a yónni ñi jëkk a gëm topp ko mooy ñi gënoon a ñàkk ba àdduna sosoo ba tey ñi ëpp alal ci kaw suuf mooy noonu yàlla yi mi ngi noonu ba jamono jii ma lay waxee quatre-vingts pour cent ressource su kaw suuf mi ngi nekk ci loxo yi yéeféer kon loolu nattuwaay moo tax suñu borom jàjj doomu aadama yi bismillah كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فتأكلون التراث أكلا لما فتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي jazakallahu xayra suñu borom mu ni kalla déedéet bal la tukrimuuna al yatim la am kay mooy yéen du ngeen teral jirim wala taxaaduuna ala taami al miskin ca du ngeen ñaaxante ay dénkante ci leel miskin wa taakuluuna turaasa aklan lamma ca da ngeen di lekk ndono lekk goo xam ne gu booloo la ay la ngeen ca moom ak la ngeen ca moomul lépp wa tuhibbuuna almaala xubban jamma bëgg ngeen alal it bëggeel goo xam ne gu ëpp la seetu leen ci lu dagan ak lu xaraam kallaa déedéet ida dukkatil ardu dakkan dakka bu ñu mokkalee suuf mokkaluk mokkal ba maase wa jaa rabbuk sa borom yàlla ñëw wal malaku saffan saffa fekk malaaka yaa ngi nekk sappe yu sappe sappe ci sappe wa ji a yowma isim bi jahannam wa ji a yowma isim bi jahannam keroog day la ñuy indi safara jahannam yowma isin yatazakkaru l insan keroog la doomu aadama di fàttaliku wa anna lahu zikra waaye naka la koy ñeelale ak fàttaliku koy jëriñ yaqulu yaa laytani qaddamtu li xayaati mu ne ay waay aka ne xool ma jiitaloon ñeel sama dunduk tey gi fa yawma idin laa yuazibu azabahu ahad bisu keroog kenn du mbugal mbugal ma yàlla di mbugal kenn wala yufiqu wasaaqahu ahad kenn du mën a yeew yeew ya nga xam ne yàlla dana ko yeew kenn yaa ayuha yaa ayatuha nafsul mutmainna ay yow borom bakkan bu dal bi irjii ila rabbik dellul jëm ci sa borom raadiya doon aji békk aji kuy gërëm sa borom mardiya doon ku ñu gërëm doon ku ñu gërëm fadxuli fi ibadi demal nga dugg ci samay jaam wadxuli jannati demal dugg ci sama ajjana mi ngi noonu mbokk suñu borom mi ngi jajj la nga xam ne mooy li ëpp ci nit ñi seeni melokaan bokk na ci mu ne yéen day du ngeen teral jirim mbokk nañu xam ne jirim mooy képp koo xam ne majeuragul bàyyam dee ku mel nii jullit da koo war a jege di ko dimbali waaye di am ci moom affection yonent bi alayhi salaam ne ana wa kaafirul yatim ka haatayni yowma alqiyaama maa ki taxawu jirim nii laay mel ak moom ay ci biir ajjana doonte ne sunu mbokk naar yi raw nañ ñu foofu lu bëree bëri aka bëri ay ONG yu nekk fii yoo xamee ne nii ci dëkki naar yi la ñuy dem ñu mel ne yéen rek ñoom ñooy jël en charge jirim yooyee su ko defee da ngay gis dañuy proposer ay jirim yu nekk Afrique kii ne jël naa benn jël naa ñaar weer wu dee ñu jox leen lu tolloog trente mille quarante mille ça dépend ci borom am am balam am loolu mbokk ala kulli xaal bu dee ne yow bokkoo ci loolu it su dee yàlla dogal na nga gis ay jirim rawatina ñoo xam ne say jege ñaare lañu sa mag moo ko jur sa rakk ko jur say nijaay ko jur ila axiri ñi jirimi jege ñaare loo man ci taxawu ba duñ jooy seen bàyyi nga la way taxawu ko ñu ngi noonu borom bi mu ne du ngeen teral jirim du ngeen ñaaxante ci leen miskin ca mbokkit loolu miskin dañ ko war a bàyyi xel rawatina lay priorité ca mooy lekkam doy gi noonu doomu aadama yu bëri da ngay gis lu ñu lekk sax duñ ko am na am ñu bëri ñu taxaw ci buntu jàkka ji dañuy wax lu leen neex waaye la tax ñu koy wax mooy daa mën a am moo tax ñu koy wax soo déggee ñu naan amuñu taal ñu ci parce que effectivement am na ñoo xam ne dañuy xëy duñu am lu ñu lekk ñu ngi noonu borom boobu moo tax ba li ñu jëm nii ci zakatul fitr islam tëral at bu ne au moins képp kuy jullit dana leen miskin xale bi judd tey ak ci am cent ans ñoo ci bokk yam kër gi yépp la ñuy génneel ku nekk la nga xam ne mooy zakatul fitre yu ñu jox la nga xam ne mooy masakin yi au moins une fois par an suñu borom yàlla subhanahu wa taala it ne da ngeen di lekk miraas lekk gu booloo ca mbokkoo arab yi bu njëkk xale daawul donn jigéen daawul donn da ngay gis ku dee tey bàyyi alal ju bari mais maadaama amul doom ji majeur ay jigéen la am frère yi ñëw ñëw jël alal yépp toog jàpp seen jàmbur loolu nag suñu borom mu ni déedéet yàlla dafa séddale ku nekk lam war a jël ci miraas bi jëlal la nga yeyoo li ci des nga bàyyi ko suñu borom yàlla nee na ñooñu lekk alal li miraas yooyu day safara la ñuy lekk ca doonte ne léeg-léeg ñi ci waroon a joxe misaal lu ci bëri duñ ko ci joxe moo ko sëriñ su bëri kenn du leen miraas na am am na ñu ñuy miraas mais ñu bëri kenn du leen miraas taw bi mu ñëw rek boof ci mercedes bi boof ci kër gu mag gi boof ci tool yi gone yi ndaw yi ñoom nekk di taxawaalu te loolu mbokk mooy lamma mooy jël la nga moom boole ci la nga xam ne moomoo ko di lu ñuy war a bàyyi xel gannaaw bu bëgg alal jullit war naa bëgg alal ngir man caay def lu baax am naa nag bëgg ba day am borno alali riba alali carte alali njuuj njaaj alali lu kenn xamul jullit bëggul alal ji mel noonu am maa nag yéeféer moom yoonu nekku ci na am rek day dañ naan xaalis amul odeur yaa ngi dégg mi ngi noonu fexeel am rek mi ngi noonu ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni kallaa déedéet loolu ngeen gise du noonu xanaa xamu leen bis ñu ngi ñëw ñu maase la suuf maase la suuf waa gars yi buñ maase la suuf ana château yi nga tabaxoon ana mercedes yi nga jëndoon ana tool yi nga jëloon ay centaine de millions def ci biir tool ya ana ana lépp maase na léegi nag mu des responsabilité ba nga amoon ci loolu suñ borom yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyaama dana xotti asamaanu benneel sant malaaka yi ñu wàcc wër doomu aadama yi ci suuf li ñu nekk asamaanu ñaareel xotteeku malaaka ya fa nekk wër malaaka yi nekkoon asamaanu benneel ñiy wërante di wërante ba asamaanu juróom-ñaareel ñëw malaaka yi nekk ay sappe sappe juróom-ñaari sappe yu tegaloo wër nit ak jinne suñ borom ca lay doog a wàcce te nam ko soobee jël wa ala daa di joxe ndigal atte ay jaamam borom bi nee na keroog la ñu indi safara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne safara soixante-dix mille jàppukaay la am jàppukaay bu nekk soixante-dix mille malaaka ñoo ciy téye soo ko boolee muy quatre milliards neuf cent millions de malaaka ñoom ñooy indi safara yowmal qiyaama borom boobu subhanahu wa taala ne keroog day la doomu aadama di fàttaliku doog a waaru nag ay kii waarul woon ci kaw suuf keroog moom da nga waaru waaye borom mu ne lu mu lay jëriñ daañ fa nekk di jabbatu yaa lay te nii yaa lay te nii yaa lay te nii mi ngi noonu fekk na c'est trop tard mi ngi noonu analahum tanawush min makaanin baid kon na ko yàlla di waxee borom boobu subhanahu wa taala mu ne keroog day yàlla ni muy mbugale kenn du ne mbugale na am jàng nañu sànq firawna ni muy mbugale ay gaayam waa aat dañ doon mbugal ay gaay waaye suñ borom ne da ngeen ñëwlu àllaaxira rek ni yàllay mbugale kenn du ne mbugale ndax mooy ki mën a jàpp jaamam di ko mbugal te du dee da nga noonu xaalidina fiha abada ni yàlla di chaîné kenn du ni chaîné nu wax na malaaka yi sab'una ziraan chaîne boo xam ne soixante-dix mètres lay mesuré faslu ko dóol leen ko ci gannaaw ba nakaal ëxlaal loolu la ñuy xaare ñi gëmul seen borom jalla wa ala borom boobu nag daal di wëlbatiku daa di ne ay yow borom bakkan bu dal bi nga xam ne dal nga ci sa borom wóolu nga ne moom rek a yàlla wóolu nga ne moom rek a yor njëriñ ak lor adduna ak alaxira wóor na ne ne doyloo nga ko gërëm nga ko mooy nafsul mutmainna ci bakkanam dal jàngoon nañ ci qiyaama nafsul lawaama ka nga xam ne bakkanam da ko yedd comme na ngay jàng ci yusuf ammaaratul bi suu ka nga xam ne bakkanam lu bon dong la koy sant ay yow borom bakkan bu dal bi suñ borom mu ne dellul ci sa borom soo ñëwee la nga fay fekk da nga ko gërëm te ku dugg àjjana gërëm la nga fa fekk ndax àjjana kenn mënu ko imaginer yonent bi alayhi salaam nee na mooy lu bët musul gis lu nopp musul dégg lu kenn musul imaginer soo demee ci tubaab yeeg seen science fiction lu nekk dañ koy xalaat ci këri avenir rek dëkkuwaay avenir rek waaye suñu borom yonent bi alayhi salaam nee na kenn mënul xalaat lu mel ne àjjana kon boo duggee da nga kontaan kontaan ci sa borom waaye suñu borom it kontaan ci yow daa dina la bis ni ki tey lu la neex defal dootuma la mere ba faw raditul mardiya demal nga ànd ak samay jaam demal nga tabbi aljanna loolu it muy wane ne jullit del ànd ak jaam yi jaamu yàlla loolu day tax mandarga bu rafet nga nar a ànd ak ñoom dem ajjana yaa ngi dëkk ca foñ néegu yàlla baa ngi nii jullit ñaa ngi fay daje di jaamu yàlla del dem di ànd ak jullit ñi jaamu yàlla lépp lu jullit ñi def ci lu baax ànd ca ak ñoom loolu tax suñu borom jiital demal ànd ak samay jaam gannaaw ba ngeen dem tabbi ajjana yal nañu yàlla boole ci mbooloo boobee yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax zakatul fitre kañ lañ ko war a génne ala kulli xaal zakatul fitre bu weer wi feeñee mboolemi borom xam-xam dëppoo nañu ne mënees na koo génne ba baa ñuy julli ji it fi weer wi feeñee ba baa ñuy julli ji it doonte ne ni am na ca ñoom ñoo xam ne sopp nañu ne mënees na koo génne benn fan wala ñaari fan avant loolu am na nag ñu ci wax sax lu ëpp loolu waaye daal la ëpp ci ñoom lañu taamu mooy boo koy joxe xaaral ba au moins koor gi korite gi des ñaari fan ndax jubluwaayu zakatul fitre mooy bisu iid bi jullit ñëpp am luñ jàpp ci sëñ càm mi néew doole boo ko teelee jox mbir mi da koy lekk bisu iid bi mu daal di jaaxle kon ñu ne daal bàyyi ba weer yi feeñ nga joxe ko mooy la gën am na nag yombal guñ ca des mën nga ko joxe avant loolu am naa ndax su may naafee jël sama portable di ci jàng jël portable bu jàng ak jël kaamil bu jàng loolu lépp dara néewu ci mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah naam ah mu ne ah barzaq mooy fii néew yi nekk nii léegi mboolem ñi dee xatta suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak bari aadama ñoom ñëpp ñi ngi barzaq mooy étape bi teqali dunduk àdduna ak dunduk alaxira amma araf araf yàlla day atte jaam yi ëllëg yowm alqiyaama ñi seen jëf yu baax ëpp dem direct àjjana ñi seen jëf yu bon ëpp dem direct safara ñi nga xam ne seeni jëf dafa yemoo ñu bàyyi leen ci diggante àjjana safara diggante boobu muy araf su leen fa yàlla nattoo la ko soob yàlla ñu ñuy nett bi suratul araf dàgg sante ba ñuy dàgg sante waa sawara ñaan ga ñuy ñaanal waa ajjana à la fin yàlla na leen ci mbaaxam dem leen ajjana kon araf moom benn diggante la rek boo xam ne yowmal qiyaama lay nekk yàlla bàyyi fa ay ñett la ko soob waaye ñoom ñëpp ajjana la ñu mujj dem mi ngi noonu wallahu aalam waaw waaw ala kulli xaal suñu borom heure bu defalee ay nit xéewal xéewal ga du ko nangu lu dul nit ña ñoo dellu gannaaw ca jaamu yàlla yañ doon def ñu bàyyi ko gannaaw ba it suñu borom bu nattoo ay nit natt boobu bala koo teggi dañuy tuub dellu ci yoonu yàlla loolu moo tax mu ne du soppi xéewal lu dul ne doomu aadama ñoo soppeeku mi ngi noonu wallahu jalla wa ala ah bismillah naam naam.
lii jëlal doom la moo yónnee woon papaam xaalis pour faj pour mu tukki faj yi extérieur léegi ci diggante papa bi gaañu mais balaa loolu dafa jël xaalis bi def ci compte papa ji def ci compte ko mu gaañoo la léegi doom bi bu gaa récupéré wala lay def ci alalu miracle mais papa bi def na ko ci loolu ci turam ba pare.
ala kulli xaal moom bu doonte ne daf koo may baayam pour baay bi daal di koy jël yóbbu ko dem fajoo ba ni nga waxee baay bi def na ko ci turam def ko ci kontam loolee bu deeyee na bàyyi ñu miraas ko tuyaaba la bëggoon ba muy faji baayam tuyaaba boobu kay yàlla matalal na ko ko léegi nag la nga xam ne moom njaboot ko don don na ko maadaama baayam la ko mayoon loole da ngay da ngay gis ne njaboot gi ñoo ko moom ñëpp ñoo ko war a doon wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah koo xam ne day woor ci du julli mbaa ko ku dul julli du jullit ki nga xam ne day woor ca du julli kooku yàlla du nangu ak julleem du nangu ak kooram fokk mu julli loolee kay li ñu mën a wax nit ki mi ngi julli ca du woor ku mel noonu dañuy seet lan moo ko teewoo ndax dafa sàggan ah dañuy jàpp ne ba tey dafa sàggan bu dee ne nag dafa jàpp ne gëmu ko waru ko loolu moom da koy génne lislaam du ne koor ñàkk koor a koy génne lislaam mais ñàkk gëm gi mu ko ñàkk gëm waaye borom xam-xam yi dañ naan sahabatul kiram day amul lenn lu mu daan gis ne ku ko bàyyi nekk yéeféer lu dul julli su ko defee mbokk julli moom képp koo xam ne du julli fa mel noonu kenn du ko nangul ay kooram ki zakatam wallahu alam naam waaw aaya bu ñu man suuxal mooy luñ daan jàng ba pare kenn jëfeetu ko mu ngi noonu léeg-léeg mu doon loo xam ne nii masalan ñëwoon na ci alquran ñu ne xamsu radaat yoo xam ne dañ koy nampal ci jigéen loolu dañ ko daan jàng comme ni ko yaay Aïcha waxe nee na yooyu bokk na ci mun mu jaman suuxal ñu ko daan jàng ne ku nampal xale juróomi nampal day aram ci yow yàlla subhanahu wa taala daal di dindi loolu loolu kon léeg-léeg am ci aay yoo xam ne ni dañ koy jàng fekk ne dañ koo man suuxal masalan comme li borom bi subhanahu wa taala di wax naan walazina yatawaffawna minkum wa yazruna azwajan wasiyatan li azwajihim mataan ila al xawr képp koo xam ne ni dafa bàyyi doom képp koo xam ne ni dafa bàyyi soxna nañ ko bàyyi ci kër gi un an te loolu da ngay gis ne ñu ngi koy jàng mais aay dañ ko mën sooxal masalan suñu borom mi ngi waxaat ba tey ne in taraka xayran al wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin mi ngi noonu suñu borom nee na ki nga xam ne dafay dee bàyyi alal ne def testament jagleel ko ay way juróom jagleel ko nangam nangam aay boobu lu ñuy jàng ci alxuraan la mais sunna moo ñëw man suuxal ko yonente bi alayhi salaam nee na laa wasiyata lil waaris képp ku yàlla jox ci cër ci miraas kenn du ko kii ala kulli xaal lu bari bari bari bari la lu aju ci loolu xam naa ñu mujj ci mbokk bi rek mbokk bi moo doon tàll waaw waaw.
damay laajte ndax am bëccëg weeru koor mën na ci diw wala parfum.
diw ak parfum loolu yàqul dara ci koor mi ngi noonu incha allah diw ak parfum loolu moom yàqul ci koor yal na yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu mboolem jaamu yàlla wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain